ma sëlmalee tusbaar booba deux heures euh, mën nañu wax ne douze moo jot ci laa jotee téléphone boobu jógee ci président la république di ko rafetlu di ko ci gërëm mu waxoon ma ci nag ñaari yëf benn bi mooy xew-xew yi amoon démb lew na ñeseen te ñàkk a waxtaan ko indi li wax olof di wax na ñàkk a déggoo amul ñàkk waxtaan a am ñàkk waxtaan rek la woon ne jumaa ji nga xam ne président bi ci boppam moo ci ay centaine de millions ci xaalis état bi waar sax ay milliards def ko ci ba mu yegg mu ñëw julli fa premier regret il ci jamonoy koor gi nee na ma ñaan bi ma ko ñaan publiquement nee na dana ko def bi ma ko ñaan dana ma ko may te mooy couvre feu bi dana nekk vingt deux heures lay tàmbalee au lieu muy tàmbalee vingt heures ndax lu bari ci nit ñi dañuy ndogoo ci seen kër yi xarit wala seen kër yi bokk wala seen kër yi dëkkandoo te loolu xajul diggante sept heures et demie fi ñu dogee ak huit heures waaye bu demee ba dix heures danañ man a reer danañ man a naafila danañ man a jàmm sante te loolu lañ ci jubloon maa ngi ko ci gërëm nag ci turu mboolem julli ci Sénégal ndax ñu ñëpp la ko defal dafa wax ne mi ngi ci jublu dafa bëggoon ko ba noppi mu door cee joxe ay ay santaane kon fi ñu toll nii santaane yooye ku comme ci war a dugg ci sa nopp dugg na ci sa nopp ndax moom am na benn net boo xam ne dana ko may mu mu wax ak ñi muy waxal yëpp conseil de ministre wala lu dul loola donc jàpp naa ne fii ñu naa ne fii ñu toll nii instruction yi président bi dem na kañ la ko nit ñi di déggee ci nguur gi tey lay doon wala suba wala altine kooku question de temps mais président bi maa ngi affirmé ne xamal na ma ne accédé na sama demande euh,